ok bisimilah ah, asalaamaaleykum ñoo ngi amaat mbégte lool amaat ak cant lool mu mel ni comme ni ñu ko waxee rek ñoo ngi fi ci barab bu sell bi waaye di ci bis bu sell bi di assemblée générale di bisub Touba. waaye ñoo ngi fi ci ñenn ci jëwriñ ñi xam si ñoo ngi liggéey bi di waa massification jëwriñ ji bala bay alaaj gi bëgg fàllu waaye ànd kook Baye Ndiaga Fall mii ñuy ay jàmbaar lool ci liggéey suñ Tuubaa bi waaye rawatina ah, ah, suuku wi bii di eh, massification ñu ci amal liggéey bu am solo di ci taxaw taxawaay bu am solo fu ñu toll rek seen gudd seen bëccëg lépp rek ñu ngi eh, fexe ba liggéey bii gën a jëm ci kanam waaye gën a yaatu ba fépp foo xam ne liggéey bi àggu fa ñu àggale ko fa kon xam naa eh, kàddu yi dañuy jox ba alaaji rek mu nuyoo ba nuyoo ba pare ñu doog a wéyal auzu billaahi bismillaahi barka Seydina Modou Fadal asalaamaaleykum wa rahmatullaahi waaw kay ñu ngi Touba ci kanam Nuuru Daarayni seen mbokkum taalib seen dong seen ndaw mu leen di nuyu di ko Fallou ci turu massification di leen ñaanal tawfeex xam ne ci moom la ñëpp bëgg ñu gën ci Touba Touba Nuuru Daarayni bismillah waaye kay jërëjëf Baye El Hadj Guèye jërëjëf ci nuyoo bu am solo kon xam naa ñu jox Baye Ndiaga Fall rek ci sama wetu ba pare ñu mën a wéyal liggéey bi. waaw bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñu mosoo seetaan ñu ngi tudd tur bi subhanahu wa waaye ñu ngi julli ci ab yaram tam sayyidina alayhi salaam di ñaanal ay saabaam ay milliards ati ngërëm waaye di nuyu ak ñaanal jëf ci jaamu la wax ci waaye di ca Cheikh Amadou Mountakha di ko ñaanal adiya yonent yàlla nu amoon muy junni at yi mag juróom fukk yàlla na ko yàlla ngi ñëw suñu Tuubaa gépp am na ñu wér yàlla dara fii ci Tuubaa Parma ngir rek luy jëgale liggéey ci ci kanam bu am solo bu sell boobu waaye comme ni leen ko waxee rek Baye El Hadj Gueye mooy jawriñ massification bi waaye en même temps nekk euh, coordonnateur général fële ca Touba Bérisia xam naa moom dañ koy laaj ci liggéey bi na muy doxee foofu ci Touba Brescia bu ko defee lu jëm ci wàllu massification bi Baye Ndiaga dinañ ci andi ay leer incha allah kon Baye Alaaji ginnaaw boo ñu bi nga nuyoo nuyoo bu sell dañ lay laaj rek euh, liggéey bi euh, naka lay doxee fële ca Touba Brescia waaye dayob liggéey Nour Daayeen Touba ci kanam loo ñu ci mën a leeral dina doon lu am solo incha allah kon bisimilah. ok jërëjëf sëñ si Badara Badara Biro Ndar ñu ngi lay siyaar bu baax a baax ñu ngi ñaan tawfeex ak ngërëm ci Abdou Khadim ak képp ku ko yéen ak képp ku ko yéen kilo ñëpp ba ci Ndar Mbacke tey su ma ñëwee ci laaj bi rek am solo loo xam ne nii day mel ni ne ñu ko laaj bari nañu lool ba tey kenn amagul tontu kenn amagul tontu mooy kenn yi wax dëgg yàlla ñoom jàppoon nañu balaa heure bii dana am loolu bëgg ci kanam mooy lépp nag dana am booloom dana am lim bën bëggoon ba Tuubaa fañ ko bëggee yëpp ko foofu fu ko suñ Tuubaa bëggee te xam ko ni sikku sàkk ci ni moom faaw dina am faaw dina am jooju nag dina am waaye nag ñi koy amal ñeneen lañ moo tax xool ndax li ko waral mooy ba na torop fi mu nekkee ba tey kenn mën amagul sax mi mër bu wér amagul te yoon ñaar lañ bëgg kon day mel loolu xam naa gàllankoor lay niru waaye man fi ma gën a jaaxle maanaam mooy ndax waxoon naa ko keroog ci njëlbeen ne maanaam li ma jaaxal mooy ñaara ci ginnaaw ñun ñi nga xam ne ñu fi war a sama fi ma soxla bu fi demal lañ daan doxe moom macha allah wax dëgg yàlla lañ doon wes at mu naan weer wu tey la mille francs la ñu weer wu nekk weer wu nekk 200 am na yoo xam ne jël luñu hmm. mais at nii nii damay 23 bii moom man dama yéem ngir ku daan wesi 1000 euros lu ma 200 2023 hmm. ñëw nga war ko wes mën a fexe ba am sa ko léeg na koy loolu vraiment doy na war lool loolu lañ la hmm. te pourtant nga xam ñu jox bari ñu fa nekkaat léegi nag man li ma li sama laaj maanaam mooy donc yi ana fu ñu nekk lan moo ko waral maam tekkeral ji léegi li ma xam mooy kon loolu day taxaw sojee boo xam ne day taxaw taxawaayu ñi nga xamante ni xëy ñoo ne ca bopp Touba ci kanam ngir kat am na ko waral il faut ñu taxaw seetlu seetlu gi mooy keneen noonu lan daan def ba tax gars yi di ñëw ba jox seenum xaay yi di lat si sa pour cent ba dem yàgg mbir mbir mi taxaw ralentir mais loolu lan la man li ma jàpp ni ko la war la mooy keneen damaa yaakaar xëy na ñun wala ña ko jiit ci Sénégal lañ daan def dañ ko dañ ko dañ ko bàyyi bàyyi ga mooy keneen lañ daan def ñaare bu ñu commencé léegi boo xoolee woon ci njaal bi ar bu njëkk ba lu daw tax bu yàgg ñu woote affaire yi yéex ñu ne ko lañ commencé liggéey bi gars yi activité commencé activité di wër di ko di ko filmé ko di ko wan nit ñi ñu ko gis ah, di ñëw di ñëw ñëw ba mu yàgg léegi nag ñëwatuñu kon loolu dama yaakaar li ko waral mooy dañoo taxal waram lañu bàyyi kon kon li ma jàpp ne moo koy moo koy moo moo koy décanté mooy waa Sénégal nañ reprendre à zéro fexe nañ daan def ci chantier yi di ko wone dugg ci maanaam barab yi di xantuwaaj lim lim jotorali si ñu koy won nit ñi di ko filmé di ko muy lenn muy benn film bi kese loolu bu amee day yaakaar ne ñoom day yaakaar ne tubaab bi dafa taxaw moo tax gaa yi taxaw loo yaakaar man mm. mais li ma gëm mooy nañ xool chantier yu bees yi xam tubaab mi ngi koy def ñu topp ko maanaam par film di ko filmé benn par benn di ko di yaatal di ko dugal Facebook yeeg numéro yi ak groupe yi ba nit ñi xam ne xel kat ku mu ko taxawaay te yaakaar loolu mooy dekkante liggéey naan dina am solo lool ci nun ndax nun kat dafa mel ni fii ne boo xasee modification bii ñuy wax fi ne di bàyyi bàyyi bàyyi man man cee wax mooy li xam ne mën na woo kenn mooy daanaka ñu ngi woote waaye nit ñi ñëwuñu ndax ñu ngi jëm a seet maj màcc eh, bu nekk ni woote dugg bunt di wër waaye daanaka ko mën daanaka weeru dee doo gis doo am kenn doo gis kenn kon nag liy coolee mooy dama yaakaar mañ tam mañ ah, xay nga la fa affaire bi taxawee muy kenee nañ rékki la xool maanaam sànji yi xam ne moom tubaab yi tamit gisaguñ ko nit ñi gisaguñ ko ñu filmé ko defar ko mu mucc ayib ñoon ko mbooloo mi man yaakaar naa li bëgg ñëpp defoon tey jaaxle ko yaakaar naa ne dana décanté jërëjëf jërëjëf Baye ji jërëjëf ci kàddu yi euh, dégg nañ li ko wax xam naa dombut jëwriñ dañ ko dégg comme noonu ko waxee rek mel na ni kon euh, euh, massification ni ma ko mën a waxee communication am nañ ci responsable bu rëy ndax mel na ni war nañu gën a yaatal bu baax a baax rek ngir soñ nit ñi waaye ngir yee nit ñi kon muy am solo kon jëwriñ yi dinañ ko dégg ci jëmm dinañ ci bàyyi xel. kon ñu ñëw ci Baye Ndiaga Baye Ndiaga kon ginnaaw bi nga nuyoo sa nuyoo bu sell boobu dañ lay laaj rek nga leeral nu ci eh, seen eh, bànqaas bii nga xam si ni yaag ba El Hadji yéen ko ànd waaye di ci dox guddeeg bëccëg di ci amal eh, taxawaayu am solo nga indi ay leeral waaye yan taxawaay ngeen ci am ak naka naka lañ mën a def ba mboolem taalibe Sëriñ Tuubaa yi fu ñu mën a nekk ci itali rek ñu mën a fexe ba dégg woote bii di nooru daarin Tuubaa ci kanam. waaw bisimilah gannaaw nuyoo woon nañ di sant bu baax suñu jëwriñ ñu fàllu bëgg fàllu bi waaye sëñ Matar seen mi suñ gannaaw dama xëcc ak moom sax bëggoon mu jël sama place waaye mu ni toogoon na ndax man damaa bëgg nekk ab dong rek dama bëgg toujours rek nekk seen gannaaw rek lu leen mën a rek seen gannaaw rek ma fexe ba loolu du leen ko dal gannaaw ba loolu jàllee dégg nañ seen fàllu soñ yi mu sol la ci xëy na Lombardia ak Brescia ak rafet rafet na lool dégg na ni ko wax jàmbat yéeg yépp rek xëy na loola ko dal rek moo dal ñu bari xëy na commencé gis sama bopp man mi li ma daan am ren jii 300 euros manqué na ko te man da jortu naa ni ameluma ak laaj na ma daan laaj yi yaa na dama ko yokk sa waaju waaju mu ko kon mu mel ne li mu taal wax sànq man ba ma ko delee wax yàgg na di wax ni doom murid yi ñoo bari waaye murid yi bëreetuñ loolu ba ma ko dalee wax yàgg na te loolu da wér na de te day gën a feeñ rek nag ba jàllee bànqaas bi nga xam ne moom nu yor di san bu baax sunu jawriñ sëñ Xaas Diop te suñu borom def léegi mu fete ca France ndeysaan waaye jàmbaara woon loo ci liggéey bi daan ci teg xar tàng tubayam daan ci soññ sëkk oto yàlla mu mel ne nag e, ñaari mbir mbir yooyu ñu bëgg daa mel ne jafe na de jafe na lool jafe na léegi nag li ko waral dëgg dëgg dëgg nekk na naa xam li ko waral dëgg dëgg it nag boo ko mënee jàngat danga naan nag doomu mbir yi daal ñëw bu raay mbir yi bëri tuuti rek loo gannaaw ba loolu jàlle nun suñ kem kattan ñu ngi koy def ci fexe ba ñaari millions yooyu ñu bëgg suñ ko mënta amit ñu mën a am xaalis boo xam ne boog dana àgg foofu lu mu jee ko boog ndax comme recensé murid ba mën ñaari millions yombul xaalis mu war nañ ko mën a am xanaa kon léegi xaalis bi nag ñu am ko nag bokk na ci suñu jawlin xaalis jub doon na wax ci at yële passé nii comme ñaari murid murid jafe na bu ñu mënoon a fexe ba am 400000 murid mètre bu ko defee li ñu doon wut sax te nag bu même buñ mënul kenn ku ne am na loo man waaye dagg sa kat yow dong yem ca bañ a daggaale keneen daal mën naa dalul sama xel rawatina kat suñu muntaxaa yi nga xam ne moom lañ ko daggal at yi ren ci ñetti at kon maa ngi ci soñ sama bopp di soñ ñëpp suñu muntaxaa dafa waxoon ni feeg maa ngi ko juróom-ñeent ak man muy téeméer ba mu toogee gaa yu baax yi nekk bàyyi sëriñ ñoom gaa yu baax yi ñoo ko mu dégg ñu ne ko léegi mu ne leen dégg boo amoon ñu ma ñu ma ci mën a wóote day bis boo fi ne wóotul loolu nag kon nañ ko ci wóote ci ak dundam mm-hmm. ba nga xam ne leer na ko ni na fi yàgg te wér waaye bi mu jógee dana am ñu ko defal ba ren jii moo ñetti at wax dëgg yàlla yomb na lool ki fi eh, nañ Rome le 6 eh, sambuye eh, demoon nañ Rome danta jawri dem ñu bari waaye nag gàllankoor yi ci amoon rek waaye ña fa rek teewal na wàlla rek la waroon ci ab soññet yaakaar naa def nañ ko waa Romi ñu ngi la sant bu baax ndax it ñoom bëgg nañ ca jataay ba waaye wax nañ ne tamit nag ab soññ ko dana fa jóge ci ñoom waaye noonu dafa demoon daañu fa soññ koo xanaa nag li ci ne mooy jàmbat li daal bokk na ci daaw ba ren noo am jàmbatu gox bu ne noo ay nit ñu boole ci association xam ne bu ñu jógatee jëm foofee dañuy jóg rek dem bu fa xew amee ñoom la ñuy woo bu fekkee yàlla daf nu am wooy fekk mën a dem ne dama ànd ak ñoom fekkee mënu ñoo tamit nañ bëgg jotaay bi demee ko ñu waxtaan ceeg ñoom ba jotaay bi demee noonee waaye lii nag jafe na xam naa daal bëgg nañ kilifa yi ñu taxaw ci rawatina coordination bi ndax loolu moom mbirum Italie du mbirum Sénégal ñi jiite coordination bi fii war na cee taxaw waaye coordinateur général yi kenn ku ne ñàkkul kenn wala ñaar koo mën a joxe ni nga xam ne soxna yi noonu lay def soxna Nday Kébé fexe ba jot fukki jigéen ak juróom yàlla loolu bu ñu ko amoon dajale ko def wutul ko benn groupe boo liggéey bi sooxe ñu fa dem fu mu si waxee ñu ànd fa dem rawatina nag daayira Sëñ Tuubaa yi daayira Sëñ Tuubaa yi ñu ngi leen woo ci liggéey bi daayira kat am nañu jàpp ci liggéey bi waaye ba léegi nii am na daayira yoo xam ne wujj lañu def Tuubaa am na de ba léegi am na daayira waxoon wujj lañ def Touba ci kanam Touba ci kanam du wujj de si mu taxaw waxoon nu leer nañ nee na woon ndolleen la ndolleen nag da ngay jël li nga daan jël bu pare dolli ko ci te du la yàqal dara nag maam ndolleen danaa wax ni danaa ko leeral ni kenn ku ne ci noonu yàgg ci réew mi xam nga ci parlementaire wala ordinaire yi ñu ne teg ci mat trente minutes ko defee weer wi dee yàq ko deful du ko dem bu subaak yéen ñaar kon Touba ci kanam loolu la kon nag maa ngi soñ sa bopp di soñ ñëpp daal gën a soññee daal ci nu fexe ba coordinateur bu ne am ñu nu jox ñu boole ko def ko ab groupe boo xam ni fu fi xew xew am daañ na nga fa xam naa tamit noo ngi waxtaan ak bëggit balaa at ma jeex incha dem na Rome ñëpp ci gox yi gox boo xam ne moom it soññee na fa ndax fu mel ne turinoo fu mel ne Veneto ah ñaari gox kat ñi ngi dox kat waaye war nañoo gën a mën a dox kon fekke suñu borom def na ñu mën a am bés bu ñu fa mën a demee ci gox yooyu baax na fi ko dimu tamit nag daaw ba nag ñi ngi woote ak loolu ñu ngi koy def tribunal woote nañ fa jot jëwrin daayira ba jot ko fay laaj côté yu bare ba def nañ ko wax bu ne waaye nag mën a tëb tëb dem nag nit ki nag mooy am yitte nag ni ma ah, man kat bëgg naa ko ñëw ni waa doon defoon mm-hmm. Mm-hmm. bëgg naa ko ñëw ko soññil ma su boobaa nag dem gi da nga cay sawar tey da nga cay am yaakaar waaye fekkee da ngaa demoon sa bopp te woowuñu laat soo demee la nga doon bëgg mën a am doo ko am kon ñu ngi jégalu baax ci kàddu bi day am na dëgg-dëgg noo ngi tub baax tey jégalu jërë ngeen jëf wasalaam jërëjëf Baye Ndiaga jërëjëf euh, ci kàddu yi waaye jërëjëf it ci euh, leerul am solo yooyu kon euh, li nga wax rek kon yàlla nanu yàlla defal digg ak topp noonu taalibe Sëriñ Tuubaa yi ba woote Sëriñ Tuubaa bii di nooru daayira Tuubaa ci kanam Cheikh Habib Laye Mbacke woote ko ci ndigal sëñ Touba yàlla na yàlla def balaa yàgg rek ñun ñëpp rek ñu dégg ko te maase soobu ci. kon ba Laaji xam naa sa kàddu yu mujj rek bu ko defee ndax war nañoo dal yeneen jëwriñ sa kàddu yu mujj rek bu ko defee incha allah ñu mën a yëkkati jotaay bi. jërëjëf sëñ euh, Badar bi doon dalal ñu ngi lay siyaar ñëwet bu baax a baax di la jaajëfal ndeysaan ci liggéey bi rafet bi ngay liggéeyal yàlla yow sëñ Modou Mbaye Thiam Baye Fallo sëñ Mountakha mbakki bi ma jàkkaarloo nii da nga koy sant bu baax a baax a baax a baax ndeysaan ndax moom tamit Touba ba nëgër noonu moom fu mu ko ni ko bisima mën a xam nañ ni li ngay def métti na trop ndax wét nga ci lool waaye nag Serigne Touba Touba Ca Kanam jar na ko nag euh, la moom sarafal la waxoon daal nan bàyyi ba ñuy fay wax bàyyi jëf jooju buñ ci àggee nga xam ne Serigne Touba kon loolu la loolu daal la ñuy ñaaral nga yàgg fi yow lool te wér te gën bu baax a baax a baax yàlla defal kantal goo xam ne si yéen lool yow ak ku mel ni yow rawatina sama mbokk yi xam ne ni suñu massification xam ne sànn ñoom ñoo ma gën a xam liggéey bi bàyyi nag wax na ko sànq ci bàyyi xaas ndax lépp moom la moo ko yor ay at yàlla dogal tax sax xëy na mu jóg dénk ko mooy li mu nekk li mu nekk France moo tax waaye kon ba tey ñoo ko ànd moom it lim ci man muy bay euh, xaas moomee lu ko raw la ci ñii man muy bay ba tag bañ jaga xaal mi xam ñoom ñaar ñoo dakar loolu ñii xam ne ba ñoom sant bu baax ba suñu bakkee bàyyi baax a baax a baax a baax yàlla yàgga def leen léegi ndax yàlla gëm naa ne man li ma fal def mooy mooy kenn mbir bu ñu ci woyoo xool ba xam foofu mooy fan ak yow boo toogee li ngay def ak loola comparé wax lu ci gën di wéttuwër mooy nu lenn man am lu gën tubaab suñu kër amut kon bu na wooyee nan fas leen bëgg lépp ñëw ci barab bi toog jox ko ittee ba noppi demaat ci ittee bopp bu subaa ji xana ñëw fii mu mooy lu wér nun moom xam ne moom danoo am xaas xaas gi mooy suñu tubaab ne na nangu woote woote na nangu ba ñu di waaye ñun waaye ñun waaye ñun yoon bokkuñ ci noonu bokkuñ ci ñoon kon loolu tubaab baax a baax a baax la baax ba tax jërë ngeen jëf kontaan nañ ci yéen lool lool suñu tubaab seera na ko jërëjëf Baye Alaaji Gueye jërëjëf ci kàddu yi waaye jërëjëf ci kàddu yi am solo yu comme noonu nga ko waxee rek yéen it ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax suñ suñ borom gën leen a dëgëral eh, gën leen a bu baax a baax ndax liggéey bi ba mu tàmbalee ba léegi yéen a ngi ci te amu leen guddi amu leen bëccëg fu ngeen toll rek yéen a ngi ci seen guddi ak seen bëccëg comme noonu nga ko waxee ndax eh, li koy wane rek bisub tey jii ndax mel na ni gox yi sorowaat nañ lool waaye kenn ku nekk bàyyi nga sa yite yëpp daw ay kilomètres ngir ñu daje ci bis bii loo wax naa ko benn mbokk la sàng ci suba rek nee naa leen maanaam bu ñëwoon nuyoo saafanti dem rek daal nay neex ndax noo ngi bokk liggéey suñu tubaab ay at xamante wuñ kon bu ñu dajee ci bis bii rek nuyoo nuyoonte rek daanaka daan doy na sëg ñu ci boolee nag yaatal liggéey bi waaye leeral liggéey bi loolu kon alhamdulilah kon jërëjëf Baye Alaaji kon Baye Maxtaar sa kàddu yi mujj rek kon incha ñu mën a yëkkati jotaay bi dalal yeneen jëwriñ incha allah. waaw kàddu yi xanaa mooy doole sant rek doole sëñ bi ci lépp rek euh, ni nga ko waxee léegi sànq euh, yàlla xam na ni euh, ndaje bii mënut a woon a ñàkk Baye Fallou Gueye mooy sama jëwriñ ci massification et maa ngi ko doo gis tey jii kon loolu jar na ko sëñ Mbaye Cissé maa ngi ko doo gis ak ñu bëree bëri ci mbooloo mi kon loolu jaroon na ko kon. waaye waxuma la nag nga jëm nag jëm nag ci kër sëñ Tuubaa loolu doog dal na xel ndax wax na sëñ Tuubaa kat sëñ Murtalaa kat am na at mu fi ñëwee bi mu duggee ci réew mi day wàññi julli waaye bi mu ñëwee sëñ Tuubaa ga bi di siyaara daf ne nag ñëw naa ci kër gi nag wàññi kon nag boo jógee sa kër ñëw ci kër sëñ Tuubaa loolu dal na xel lool kon ñi ngi fasaal suñu bopp di fasaal suñu mboolem bokki taalibe bi ak mbokki julli yi fu ñu ne yàlla na sëñ Tuubaa dafa leen seenu bëgg te ñuy wut di ñu jot ko la ñuy daw raw ko ba faw bëgg sëñ Tuubaa jërë ngeen di wasalaam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf Baye Alaaji waaye jërëjëf Baye Ndiaga jërë ngeen jëf ci kàddu yi am solo yi waaye jërë jëf ci leeral yi